mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp te di leen siyaare di jël nuyoo beeg siyaar bi nag di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa Basiru ayadallahu wa nasrahu yàlla na ko fi suñ boroom saxal. képp kuy sol sa dàll rek lislaam tax laa jóg yàlla na saw dàll jotal. senegal yàlla na fi jàmm sax. mbokk yi fi jël kàddu yëpp kàddu yi am na solo lool ba ci sang bi Mbàkke nga xam ne moo jóg léegi ñu toog ñu ngi koy tatagal. di nuyu bu baax njabootu sëñ Daaru Assane Ndiaye di leen massawu di nuyu bu baax it njabootu sëriñ Baara Mbakke di nuyu njabootu sëriñ Sidi Muxtaar man ci sama jëmmi bopp maa ngi nuyu njabootu sëriñ Saliou Mbakke gi yëpp di ci jiital sëriñ Cheikh Saliou Mbakke di nuyu ndongay tarbiye yi di nuyu tamit njabootu Cheikh Baara Macky Sall de mënoon na koo bañ a jàpp waaw mënoon na koo bañ a jàpp ndax jàpp gi amul dara lu mu koy jural daf koy wàññi rek waaye du ko yokk waaye Macky jàpp nga ñépp waaw ah, man damay dem ba kaso bi damay gënal bitti gi ndax kii mu jàpp te ñun defuñu dara. dem ba ñun ñitu daara yi suñu kilifa yi xam nañ ne ñu ngi ñuy jàpp it donte ñu ngi koy ñaan waaye mayewul ay tuut tànkam yu ndaw nekk ci kër gi ñu koy jël di indi fetal ñépp di ko gis toog lii ko ci waxul réew mi fi jëm du baax ñun sëñ Saliou yarawuñu woon nii te sëñ Saliou jóg waxi loolu Macky Sall lii ñëw na fa ba tàyyi fekku ñu fa sëñ Saliou ñëw na fa de Macky Sall ñëw na fa fekk fa sëñ Saliou man mii fekk na fa mu yëkkati ay yére jox ko tey sëñ Sidi Moxtaar ñëpp làqu mu ñuy jàpp di ñu tëj ñuy jaay doole de waxuñu lim def waxuñu lum deful lu leen neex wax leen moom la def dañoo bëgg mu ñibbisi war nañ sëñ saaliwu de war nañ sëñ saaliwu jógal xaaral xaaral jëlal ma jëlal ma lee maas jëlal ma lee xanaa ah, xaara xaara xaara yee boobu laa doon wër merci ah

xaaral xaaral ma ci wax loolu ndax daa am solo benn kii bu am solo bu mu war a jàllale rek xaaral loolu la ñu message dafa am message bu mu war a jàllale dafa am message bu mu war a jàllale bëgguma kii nii ah Mor Mor daa am Hey, hey, hey. ku toog fii di ko def di ko def rek ngi ñëw boo xam ni nit ñi danañ la wut ci barab bi loo ko defal situation yi ñu toll ak insiste bi ñu xam ci Sénégal parce que moom sëñ Baara ci boppam ci fan yi ñu weesu doon na wax na nañu organiser benn conférence de presse pour Assane Mbacké yi doon na ko wàcc léegi moom bi mu koy wax amaana danañ ko ko organiser waaye nag man gëm naa ne bettu parce que buuri adduna yi nga xam ne dañoo dem ba àgg ci maanaam jàng ci ndawte loo xam ne duñu xam ci ñu degee seen tànk ni ñuy doxee rek mooy problème bu ñu am ak nit rek benn position la am mooy emprisonné la Firawna dana woon Moussa lu toll ni nu boole ko andi du wax mu ne ko laa inna taxasat ilaahan xayri laa taxalannaka minal masluuliin maanaam boo bëggee jël position yi ma am man ci not nit di leen jaamuloo sama jëmm ji nga changé ko ba koo nga féendi leneen ma lay am emprisonné Sulayxa it ba mu ne Yuusufa nañ ci dem Yuusufa gàntal ko def ko ni la in lam yafxal ma amuruhu ay yuslima na wala yakuna mina shaakirin kon ma lay sant boo ko nangu la ma lay emprisonné kon day mel ni ñoom bëri adduna yi nga xam ne kulluhum jamihan attaaxuun problème bu am ak nit rek li ñu koy bëgg solutionné mooy dañ lay emprisonné emprisonnement boobu nag man ci fa ci waxtu yii xaw na maa bett ndax discours bi sëñ Ba yoroon fan yi man ak moom ak yàlla toog nañ fii mu ne ma dialogue bi man damaa bëgg ñu solutionné ko man ak yow parce que dégg naa di ko contre man man dama koy contre waxtu ne mu ne ma wax naa ci benn scène xaw ma yow laa ma dégg nga ko ma ko dégg naa ko mu ma sama tur rek laa fa tudd ma xam naa ma ñëw géjuma fi bi ñuy wàcc ma daal di jàpp ci loxoom ma ne ko sëñ baara ma ne ma ko yow est jënduñu la man maa ko wax lii de man ak moom ak yàlla ma a ko est ce jënduñu la mu ma ndax la ma ne ko parce que discours yi nga am man fan yi dama xaw a dialogue bi dialogue bi dialogue bi da xam nga ne Macky Sall ku mu mas a dialogeel mm-hmm. maanaam dialogue ba la muy tekki mooy gas pax dugal la ci yow nga xëy rek na dialogue bi dialogue bi après bu ma demee nag ci ginnaaw suba si lañ taal oto bi biñ taalee oto bi ñu ma ñëw fii di ko mas waaye teewut am na ay dugg parce que am na maire bu ne woon fii Tëngéej taaloon na këram xam ngeen ko jamono ne man militant yi opposant bi ñoo ko taal di enquête yi génnee moo ko taal yàlla na ko yàlla yéen xam ngeen bu baax mais tey bi jàpp gi amee nag moom daf ma jaaxal parce que daa ma jaaxal mooy ci moom ku leen koy jàpp di la ko weesoo jàpp nañ actuellement militantisme bi Sonko am Cheikh Bara bokk na ci ñu mu wax lañ koy jàppe parce que man li mu wax gisuma lu ci nekk wala lu lu mu wax te ko wax wala lu wax kenn mos ko wax problème jàpp na ni nit ñi jamono bii ñu toll ci situation yi ñu toll ni ñuy dundee nii moom ñi leen ci dugal ba ñu ñuy dundee Cheikh Bara ci la man li ma gëm mooy loolu mooy li ñu ko jàppee gars yi nag ñaare bu la bëggee jàpp moom mënoo fex bu duñ la jàpp waaye waxtu bii ku ñu jàpp daan la baax parce que li dox seen digg ak bàyyi réew mi dafa yàgg dafa dafa bareetu ñoom wóor na leen wóor ñëpp waaye nit ñaare dana am xelmul yaqin waaye alxawa maam nafsu bakkan daf koy conduire ci lii dëgg da koy teg teg ko ne waaye na nafsu ah, dafa ne an nafsu kat teg in taxmilu subhaana xubbi rabaa yi wan tax waaye ñoom xam nañ xëll na kuñ téye itam mënuñu laa téye neuf xam nañ loolu xam nañ xel mënuñoo kenn téye wala ku tëdd ci kaso bi neuf mois rek xam nañ ne ka leen wutu moo fa bàyyi nit ñi waaye mënuñoo téye kenn neuf moo kon ñun xam nañu ne li ñu koy ñaan neuf jours yàlla bu ko mat yàlla bu mu ko mat te ñoom day bàyyi ko mu ñibbi këram moo gën a nekk seenam noflaay parce que sëñ Baara Ndiaye ci ay garde à vue bi sëñ Baara ko mën a yóbbu nit ñi di baax nit ñi wax lañ ci man bu dégg bëccëg te duñu mas a noppi di wax ak te duñu mas a noppi noppi di wax ak ñoom en tout cas daal koo xam ne la ku ku Sénégal soxla la ku waa senegal soxla la kooku tëj itam ci dëgg te lañ te la mu wax bañ tëj ko bu génnaa ne ko waxaat la Cheikh Tidiane wax nag daal ne man euh, Senghor emprisonné na ma waaye nee na emprisonnement yi na bu doonul woon nag maslahatul muminina ak muslimina yow xaar ci biti ma jël kaso bi ma leen def asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam euh, sëriñ fii la xewee sëñ bi fii lañ ko fekk fajar gi def lu leen neex fees kër gi dellu kenn kenn xamul daal je ne sais pas jaay ko doole ci koo xamante ni mën nañ ne amul dara lu muy def lu déborde wala lu dépensé ndaxte koo yàgg a topp ay mën naa ne ay deux ans ci lu nekk jéemal nañ ko ko waaw tey nii nag lii nañ fi lii lañ yeewoo daal ci dimanche bi. mais ñoom naka lañ fi ce que Cheikh Bara dafa jotoon plainte non non loolu moom amu ci wax dëgg yàlla. d'accord nan la ñu duggee ci kër gi. Euh, kër gi comme rek ni ñuy def moom ku doole moom moo la mën waaw ñoom duggee nañ fexe nañ xam naa. ba xam nu kër gi doxeeg yooyu ci lañ fi ñëw dugg si waaw ah, bi ñu ñëwee <coughs> xam nañ ni kër gi sëñ bi am na ay taalibe ki lu nekk dañ fee ñëwee ñëw menaçant yor seeni arme lu nekk ah. mm-hmm. yàlla baax na daal daal du bari nañu woon moom police oto police moom dafa feesoon fii dellu si koñ bi mm-hmm. ah. dañ doon wax ni bi ñuy ñëw dañu doon tiire ay pistolet fii est-ce loolu da koy non tiire wuñ mais déggee na nañ génn seen arme tiimale ko nii waaw. d'accord dañuy menacer rek ay menaces. Hmm. bon ay menaces rek moom comme comme yaa jéem a tiital nit ñee ko xof te fii moom ñu lay góor lañ wax dëgg yàlla. Mhm. ak respect moo tax sax ak leneen moo tax sax mu demee ne ndaxte sëñ bi mu nee bu kenn def dara it ñëpp a dégg ndigal li ba kenn deful dara. Mhm. alors bi ñu man moom wax dëgg yàlla. yu bari ci ay manoteeg yooyu moom naata instant bi maa ngi ci kër gi damaa génnaat damaa damaa delluwaatoon ci beneen kër gi ndaxte xam naa sama xam nañ sunu neexul nga jàkkaarloog sa kilifa ñu koy def yenn yi moo tax affaire yi commencé laa génn dem mm-hmm. ndaxte metti metti woon na ci xool ngay gis yenn yi neexul. Mm-hmm. alors euh, tout tànk yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci kër gi seen réaction dañu doon yóoxu dañu toog ci foofu. non tout yi moom ñoo ngay ñu ci daara ja parce que ñu bëri wax nañ ci kanamam lañ ko doon tegee loxo. waa ci kanamam fekk na lépp fekk na lépp mais yàlla daal yàlla nañu yàlla àtteeg ñoom yàlla nañu yàlla àtteeg ñoom man instant bi on est amuñu moo yi ñu wax ko waa danoo dafa kiiwul yàlla nañu yàlla àtteeg ñoom barke sëñ Baara. non non loolu moom yooyu yëpp amu ci yooyu yëpp amu ci ñoom ñoo def lu leen neex rek am na sa sa kàddu yu mujj ci mbir mi parce que Cheikh Bara gis nañu bu yàggul otom bi nga xamante ne taal mm-hmm. nañ ko après ñu tegaat ko euh, loxo euh, tey otom boobu nga xam ne taal nañ ko est ce que am ngeen ci lenn ci ay preuve yu nga xamante xam nañu ko. ah non non loolu moom dëgg yàlla. Mm-hmm. liggéeyu police scientifique la. dañ ko seen loxo la nekk. Mm-hmm. waaw alors sa kàddu yu mujj ci loolu. ñoom yàlla mi àtte yàlla nañu àtte rek. ndegam sëñ Bara mos na def lenn lu baax ci kër Serigne Touba lu toll ni tànk yàlla na ko suñ borom fay. parce que maam Seera Fall loolu foofu daal la xam luñ mais wax ji nga xam ne fa lay jullee saa nekk nañ ko fekk jàkk ji moo nekk waaw fii mooy jàkk ji fii lay defee léppam mhm. waaw li nga fi ñëw boo ko gisul rek mu ngi fii mhm. waaw fii lay duggee xalwa fii lay duggee xalwa daal